الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي دلو سيوات شي توفيق برم عز وجل شي سنو درس شي جانغون فقه xam ngeen ne noo ngi woon ci charti ni ngeen ko gisee mboolem mbir yi nga xamante ni rek mbiru diina la di ay xeeti njaamu maanaam ay acte d'adoration da ngay fekk ca biir lu ñuy tuddee ay chart ma ngoog da ngay lu ñuy tuddee ay charte charte yooyu nag nekk loo xam ni ki nga xam ni muskallaf la muy ki nga xam ni adulte la te diina ñor ko mu war ci moom charte yooyu mu koy appliquer di ko jëfe waaw ngir mu mën koo jëfe nag faaw mu xam ko te pour mu xam ko it faaw mu jàng ko lii mooy mbir yi nga xam ni dañ ko war a jàngal nit ñi waaw dëgg la baax na lool ñu leen di nettali histoire yonant yi jaar jaaru yonant yi loolu baax na lool ndax dana bokk ci lii yokk ngëm waaye waruña caa focalisé rek ba négliger yi nga xam ni ay faratay jëmm la maanaam ay obligation individuelle diina diina dafa am loo xamante ni nii moom mooy obligation obligation dafa am ñaari forme dafa am obligation individuelle ak boo xamante ni collective la bu collectif mi mom bu ko ñenn ñi taxawé wàcc na ñeneen ñi waye nag obligation individuelle bi mom ku nekk ya koy mëna taxawal sa bop keneen du ko taxawalal moromam papa du ko taxawal dom dom du ko taxawal papa borom kër du ko taxawal soxnam soxna du ko taxawal borom kër gis nga ko serigne du ko taxawal taalibeem talibé du ko taxawal sëriñam déedéet ku nekk yaa koy taxawal sa bopp d'où l'importance nit ki jàng loolu kon daf lay won solo si nekk ci jàng am na yooy maanaam am na mbir yoo xamante ni nii lu mu gàtt-gàtt lu sa aliwe gàtt-gàtt war ngaa góorgóorlu jàng ko le minimum requis ngir lan ngir sa lislaam mën a taxaw loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bu ko defee kon gisoon nañ ne charte njàpp fukk la charte njàpp fukk la mu am yuñ ci jotoon a gis te muy lan lislaam maanaam nga nekk jullit xel nga nekk koo xam ni amee woo feebarum xel ràññee toll ci juróom-ñaari at muy ati ràññee yéene gannaaw yéene ba ca toppoon moo doon àndatle atte ga maanaam atte yéene ga ba keroog njàpp la di mat ba ca toppoon noppi pare ci mboolem loo xamante ni ni day waral jàpp ba ca toppoon mu nekkoon defaru ba ca topp mu nekkoon laabuk ndox ma bu ko defee mu des ñaar ñaar yooyee nag ci la dikk tey ji bi iznillahi jalla wa ala ñaar yooyee benn bi di dindi lépp luy tere ndox mi àgg ci der bi dindi lépp loo xam ni day tere ndox mi àgg ci der bi waaye fii mbokk jullit yi liñ ci namm mooy cër yi nga xam ni ñooy cëri njàpp ci cër yi nga xam ni ñooy cër yi njàpp la concerné loolu ñu bàyyi ko xel bu baax kon kiy jàpp war na bàyyi xel ne loolu chart la ci njàpp dindi lépp luy tere ndox mi agg ci der bi maanaam dindi lépp luy taq ci yaram bi te di tere ndox mi laal der bi lépp loo xam ni rek mën naa taq ci sa yaram ci cëri njàpp yi te bu ca taqee day tere ndox mi laal sa der bi ma day tere ndox mi laal li nga xamante ni mooy der bi ma ci cëri njàpp yi moo xam der la deru yaram bi muy po moo xam ongle la weya loolee des koy dindi ma loolee des koy dindi bu fekkee looy xoos la xoos ko mu daj waaw bu fekkee looy leel la leel ko mu daj kon xamal ni daal yow mi nga xamante ni nii njàpp daa war ci yow fexeel ba cëri njàpp yi bu ca def loo xamante ni nii boo ko ca defee ndox mi du mën a egg ca der ba wala mu egg ca weya waaw loolee des koy dindi ngir la mën a wér waaye nag bàyyil xel am na ci matière yi yoo xamante ni nii day soppi melo rek waaye du tere ndox mi egg ci der bi comme lu mel ni fuddan fuddan fuddan boo ko defee ci sa loxo walla nga def ko ci say we wirgo wa mooy soppeeku maanaam couleur ba mooy changer loxo bi jël couleur fuddan bi waaye du tax fuddan ba bàyyi ci loxo bi loo xam ni day tere ndox mi àgg kon lu mel ni fuddan bokku ca fukkeel ba dugguk waxtu wi ci ki taqoo ak toj toj ki nga xam ni dafa taqook toj toj kookee charte la ci moom mu xaar ba waxtu wi dugg mu dooga nag jëm ci njàpp ak la ànd ak njàpp niki ki am feebar ci benn ci ñaari yoon yi am na ñoo xam ne dañuy amee feebar ci benn ci ñaari yoon yi maanaam ñaari génnuwaay yi ci kanam ak ci ginnaaw gis nga nga xam ni lay génn ca kanam moom day génn génn boo xam ni day continue maanaam du dagg day génn rek gis nga am na ñoo xam dañu am façon feebar bu mel noonu ma ngoog wala boog bu dee la fare ginnaaw nga gis ngelaw maanaam gaz di fa génn génn goo xamante ni nii saa su ne rek da koy bett du génn ci sagoom daal nga xam ni du ko mën a téye ma ngoog kon kooka bokkut ak ki nga xam ni feebar dalu ko kon kooka balaa moo jàpp day xaar ba waxtu wi dugg julli tisbaar bu jotee <clears throat> dugg waxtu tisbaar wi lay xaar ndax moom mënta yàgg ak jàpp kon mënta jàpp toog di xaar waxtu wi doog a dugg déedéet day xaar ba waxtu wi dugg day ànd ak waxtu wi kon moom ma ngoog kon su waxtu wi duggee lay defaru daal di jàpp julli kooku moom noonu lay def su waxtu wi duggee ci lay di dem defaru préparé boppam defaru gis nga ma ngo bu mënee jëfandikoo loo xamante ni nii surtout ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci kanam gis nga su mënee jëfandikoo loo xamante ni nii ma ngoog nga xamni bu ko solé lay wàcc du wacc di di di touru ci souf man ngoog wala defee bu défaro dal di jàpp ñëw dal di taxawal julli nak jamono nak ba muy julli nak jamono bobé nga xamni jël na ay matuwaayam ba def li muy def ba pare luy génnaat lolu nekkatul ci responsabilité ndax mom dafa am ngantul mu àndal ngantul lan la feebar ma l'islam diina la bo xamanteni ni diina yërmande la diina jàppandal la diina woyofal la ma ngoog moo tax am na ci mbir yi yoo xamante ni nii bu ngànt la taxawee rek jàppandal day daal di ñëw woyofal day daal di ñëw ma ngoog kon kook boobu moom mooy fukkeelu charte bi maanaam ki amee loolu nekk ci jafe-jafe boobu kooku moom day xaar duggug waxtu wi ngir mu mën a defaru daal di jàpp bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaram assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu